فإن موضوعنا اليوم إن شاء الله هو الأضحية وصلاة العيد أقول بالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وأنواع هي الخروف والمعز والبقر والإبل ولا يجزي في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في قلقتها فلا تجزي العوراء ولا العرجاء ولا المريض ولا العجفاء لقوله صلى الله عليه وسلم أربع التي تجوز في الأضحية الأربع التي تجوز في الأضحية العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلوعها والكبير التي لا تنقي أي لا مخ في عذابها والأضحية أيها المسلمون سنة مؤكدة للبيت وليس لأفراد البيت لقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبتين أقرنين وقال رب هذا لي ولأهل بيتي وهذا لمن لم يضحي من أمتي وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلم عليه أقول قولي هذا واستغفر الله إليه وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم من خمني moo tax tey ñu nekk ci lu ñu nekk ñu nekk ay ay ay julit di ko gërëm lool di gërëm ay saxaabaam rawatina abu bakr wa omar usman ali radiallahu anhum wa ala baqit ashaabi mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne suñu xutba gi tey ñu ngi ko teg ci xaram tabaski ak julit iid xaram tabaski tabaski moomu muy sunna boo xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye maa ngi wax di ñaan yàlla ndimbal di wax ne bismillahi rahmani yàlla mu ne fa salli li rabbika wanhar yow muhammad demal nga julli tabaski waaye nga rey sa xar rey xar moomu nag mooy soxla si tey nga xam ne bari nay kër tey borom kër mooy jënd xar waaye moom du tabaski jabar jay tabaski man dama foogoon ne borom kër bu jëndee xaram moom mooy war a xar mu tabaski waaye bari na kër yoo xam ne tey borom kër gi mooy jënd tabaski waaye amul dara lu tax dara mooy amul éene bu rafet yàlla éene lay fay parce que yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne innamal a'maalu binniyaat looy def teg ci éene nga dem jënd xar ma foog ne boo jënd xar da war a seet xar boo xam ne man na tabaski waaye ñaa ngi seet ne man koñ bi ma dëkk maa fi gën a rëy xar maa fi gën a rëy yow amuloo tabaski amuloo dara yaa pare nga am ngir ne ba ngay dem xar di jënd xar waroon ngaa mën a am xar bu em rek ci tabaski waaye nga dem jënd xar moo xam ne yaa ngi ko jënd thirty thousand dalasi boo xam ne waroon ngaa mën a dimbal sa mbokk mu am ci tabaski nga am ci mu am ci ne moo mënta am waaye nga dem ne maa gën a rëy xar ci dëkk ci koñ bi yow amuloo dara ba pare te li ci métti mooy ba nga ko indi sa jabar nga ko jox sa jabar mooy tabaski yow tabaski loo te tabaski yow yaa war a tabaski bon mbokk yi yàlla wax na ne yow Muhammad dama nga julli tabaski nga rey sa xar waaye yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man kaana zabaha qabla salaati fal yu'id koo xam ne da nga rey sa xar bala ñoo julli na nga na nga reyaat ban xar lañ war a rey xar boo xam ne dafa dafa baax dafa wér kéng xar boo xam ne bët yaa ngi baax gumbawut pattut benn bët bi mu ngi baax na benn bët yaaxuwut ñaari bët yi mu ngi xool nopp yaa ngi baax bëjjën yaa ngi gudd yaram bi dara manqué wut waaye xar ma dofut daf day am xar yu dof xar ma bu mu dof waaye xar ma ne nekk xar moo xam ne mu ngi wér ba nga xam ne léegi wala nga rey xar bi nga ko reyee nga xaar ko nga gis ni yàpp dafa yàpp ba démb rek am na ku ma indil xibaar ne dafa dem jënd xaar ci daral bi nañ ragal yàlla billahi nañ ragal yàlla jënd xaar ci daral bi yóbbu ko ci këram nekkee xar biir bi dafa dafa xar dafa góom mu jël beneen deri xar teg ko foofu kole ko fa nañ ragal yàlla billahi nañ ragal yàlla bugg xaalis bu mu la jaral lii xar boo xam ne baaxut fii dafa yaaxut nga jël beneen deri xar teg ko ko kole ko nga dem jaay ko jàmbur mu yóbbu ko ci këram xool ko gis na lii moo xew mu dellu si yow nga ne ko man jaayu ma la ko laa ilaha illallah xanaa yow doo doo xelaat ne yemal xiyaam mu ngi ñëw ban mbokk yi nañ fexee am xar bu baax ñu rey ko te yàlla tax waaye jaay kan nañ ragal yàlla jaaykat yi li waroon a am mooy dañ waroon a ñëw indi xar yi dimbale nit ñi waaye billaahi ñu bari ci ñoom dimbale wuñ kenn dañuy rey nit ñi dañu leen rey dañu bon maa ngi leen di dénk képp kenn si ñun nanga nga am xar sa kër nga koy nga yar nga yar xar benn xar twenty thousand dollars yi te li nga xam ne moo war a am mooy yow da nga waroon a am sa kër masalan sa kër li la war sa kër mooy sa dundi kër dafa war a am sooy fay luwaas nga am loo fay luwaas ba pare nga am lu sa yére yi xale yi nga am lu leen bu desee xaalis nga jël tabaski waaye tey bari na ci góor yoo xam ne bu amati tabaski ñu téye la sa bakkan bi ñu bënd sa bakkan bi téye ci bu di di la fa jàpp bàyyi foos bi jënd xar yow xar nga jënd pour sa bopp la wala pour jigéen la ndax yàlla moo la forcé nga jënd xar déedéet yàlla mu ne li man istataa ku ko mun ku ko mun yow mënuloo ko ba nga xam ne tabaski passé na nga dégg rajo Gambie ñu ngi oote ne diw sàngam kaay nga fay sa bari tabaski bi ku la wax nga leb yàlla yàlla mos sa wax kenn ko lebal tabaski bon mbokk yi nañ ci bàyyi a baax mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam tabaski ban moo baax mooy boo xam ne dafa wér ci niñ ko bindee ni ko yàlla bindee e, bët yi mu ngi baax tànk yi mu ngi baax du dee soo waaye feebarut waaye màggetut màgget baa xam ne jekki na ba nga xam ne soo ko reyee yax yi du am yuur baaxul baaxul bon mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax yi nañ bàyyi xel baax xar boo xam ne bët yi baaxul du baax xar boo xam ne dafa feebar du baax xar boo xam ne dafay soox du baax xar boo xam ne dafa màgget du baax mbokk yi tabaski moomu dafa ñëw pour kër gi yëpp benn xar mën nga rey benn xar pour kër gi yépp waaye man nga rey benn nag pour juróom-ñaari kër juróom-ñaari nit ñu bokk benn xar benn nag waaye benn kër kii rey xar twenty thousand kii rey xar fifteen thousand kii rey xar dafa xaraam yàq la de inna allaha la yuhibbul musrifin yàlla bëggul yàq nañ moytu yàq te xam ne du baax mukk yàq nañ ko moytu te soo amee sa tabaski nga bàyyi sa xel ne yonti yàlla muhammad bi mu nekkee di dunda amoon na benn at boo xam ne dafa am ñaari xar mu rey ñaari xar yi mu ne xar bii man la ak suma waa kër xar bii mbooleem koo xam ne mënuloo am tabaski yan ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaskil na la koo xam ne mënuloo am xamal ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaskil na la masalan su fekkee yow da nga am benn ten thousand nga am mënuloo am xar demal ci dara bi jënd yàpp nga ñëw togg sa kër yàpp nga noppal sa bopp waaye déedéet da ngay dem enu ay bor ay bor ay bor teg ko ci sa kaw ba nga xam ne after tabaski passé ñu naan la kaay fay ma kaay fay ma kaay fay ma jaru ko am ñoo xam ne duñ lem xaay dañuy dem ci jaaykati xar la ñoo dem jaaykati xar ba dañoo dem jox ko la nga am mu lebal la nga yóbbu sa kër pour lan ku sa jabar mu ne am nga xar bu rëy amul njëriñ du la jëriñ dara du la jëriñ dara amuloo yàlla mu ne li man istataa ku ko mun nga def ko mënuloo ko nga bàyyi mu jeex waaye nga ren bàyyi force danga ko de déedéet déewu noonu jul islam nekkul forcé islam yàlla mu ne laa ikraha fi diin diine bi amul forcé yàlla mosut forcé kenn ci lenn ban mbokk yi boo amee xar ba pare boo demee bay ba ngay reen nga teg sa xar wax ne bismillahi bul wax ar rahmaani rahim bokkul bismillahi nga wax bismillah allahumma hada minka wa laka nyanyi rey ñaani reey tabas bismillahi allahumma hada minka wa laka jeex li gëna ba su fekkee am nga xar boy ko amé boy rey nga reey ko sa bop mo gëna baax yow sa bop nga rey yow nga rey mo gëna baax bo re jigen sax nga reey ko mo gëna baax jigen sax ndem man na rey bu fekkee mënta reey mum jigen bu fekkee dafay tabaski na ñew taxaw yow nga reeyal ko mu taxaw ko am na benn bés yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo na fatima ne ko yaa fatima kaay nga xool sa xar bi ñu la ko reyal sallallahu alayhi wa sallam jigéen nga am nga tabaski mënuloo rey nga am ku la taxaw ñu reyal la nga seet nga xool yonti bi na sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla yàpp la soxla bu yàlla soxla woon yàpp ne ko gëlëm la ñuy wax waaye xar la ñuy wax xar moo gën a baax yàlla soxlawul yàppa bi wala dimaa'uha soxlawul deret ja walakin yanaluhu taqwa minkum yàlla ragal yàlla soxla ragal yàlla nañ ragal yàlla wallahi nañ ragal yàlla billahi wallahi yonti waxoon na ne julli mooy mujjee ci diine masalan diine bi yëpp jeex na léegi diine bi yëpp jeex na masalan e óola gëm yàlla jeex na óolu jeex na toppatoo wante jeex na buggante jeex na julli mii moo fi des julli fi des su tax ma wala ko mooy nit ki nga xam ne am na am xar ca ca jaayekaay di ko jaay biir baa nga xooteeku ba gaañu baaxut bu tabaski mu jël benen dere xal lal ko fa lal ko fa ko kole ko pour lan jaay la xana ki xamul ne yàlla dana dana daje yowul xiyaam dana ñëw yowul xiyaam li ci gëna métti moy borom ñëwaat ne ko mané ne yaa ko jaay mu ne ko jaayu ma la ko bon nguur gi nguur gi war ñoo tek nit ci jaaye kay xar bi ko xam day xol nit ñi ko jaay jaay bi na am keuy nañ am keuy dañ ko def ci këyit waaye jaay nga ko dem na li nga ko jaay baaxut mu indi ko nga ne ko déedéet du ma a baax bon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi nañ ci bàyyi suñu xel bu baax a baax. mais nu mu mën a demee dana am bés boo xam ne dañ daje ak yàlla dafa am benn arab yi arab yi bu ñu ko waxee mooy arab boo xam ne kaw kaw la kaw kaw la arab yi kaw kaw mu ñëw si yonent yàlla Muhammad صلى الله عليه وسلم نكو يوك يلا يوني مو نكو نام مو نكو كان لا يوم القيامه بنيو يوتيب نكو اه لا تيغا اه لا تيغا كان لا كان يوم القيامه مو نكو لا تيغا واي ما نغلاي وخال ني يوم ميغي خا ياغي لا تيغا يوم القيامه لو بريباري بو يوم القيامه ياو لوكو بريباري ربي نكو مانكو بريباري ني بوغنا يالا بوغنا لا صلى الله عليه وسلم buguna naa yonte bi buku naa reel yonte bi ne ko sallallahu Alaihi wasallam e, yonte bi ne ko anta maaman ahbabta yow da nga and ak nga bugu ngeen dugg aljana sallallahu Alaihi wasallam nañ buku yonte bi buku la yonte Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yonte bi ne ko yow da nga and ak nga bugu dugg aljana way nañ ci baye xel ne ku bugu ku baax ku ne ku baax ku ne boko bugge yene and ànd aljana way bo bugge ku bon yene and dugg safara dañ ci bàyyi xel baax kuy wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad mooy wax mu ne koo bugg yéene ànd ki nga àndal bu baaxee ki nga bugg bu baaxee ngeen ànd dugg àjjana ki nga àndal bu bonee ngeen dugg safara yàlla na ci yàlla bu sax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سبيل المستقيم وعلى آله حق القدر العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبد الله وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام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 أقول بالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاب عنه وعن أهل بيته وأنواع هي الخروف والمعز والبقر والإبل ولا يجزي في